ñu ngi nii mbokk yëpp yi ñuy seetaan di leen ziar di leeral rek suñu daje bi tey ci bërëb bu tedd bi di Buqaatul Mubaarak ci penku jumaay Tuuba eh, li ñu fi dajale eh, yaakaar naa umpatul kenn te mooy ay xew-xew yoo xam ne xew na ci dëkk dëkk boo xam ne dëkku jullit la muy dëkk bu ñuy wax Borma te ñu jàpp fa lu tolloog eh, million ci ay jullit di leen torturer di leen ray ak di leen lakk di dagg seen cër yi eh, di leen mettital di suul sax seen jëmm yi te faatuwuñ xeetu mettital wu nekk rek wu nit xalaat rek ña ngi leen koy def ca dëkk boobu te loolu yëpp li leen ko teg mooy gëm giñ gëm yàlla suñ borom naan wa maa tanqimu minna illa anna amana amanna bi ayati rabbina lamma na suñ seen sikk daal mooy ba yàlla waxee topp leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ koo topp gëm ko te mooy ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen rey waajoo xam ne dane yàlla mooy sama ñoo ñoo ñuy rey ñëpp nag benn baat boobu lañ leen reyee mooy seere ne amul benn buur bu dul yàlla yonente bi alayhi salaatu wasalaam tam mooy ndawul yàlla loolu yi lañ leen lañ leen lañ leen jàppee di leen ci toroxal di leen rey eh, ñun nag eh, ñi ngi fi Touba am itam loo xam ne dëkk bi da ko warlu mooy bëgg nañoo wane suñu naqar ci li nga xam ne ñoo ngi koy toroxal suñu mbokk jullit waaye gannaaw dëkk bi moom kenn kenn euh, daa bokk ci ay duñu fi mars di wane comme yi ko yeneen dëkk yi di wane ñun nag niñ ko defee tey mooy daje fii ci penku jumaa ji nga xam ne rafet nañ jort ne lu fi waay ñaan mu am ndax borom borom moo ko moo ko liggéey moo ko fi ñaanoon itam ñu daje fii tey euh, jàng alquranul karim jàng qasida def ay salawaatu ala nabi ngir ñaan suñu mbokk jullit yooyu nga xam ne dañoo nekk ci dëkk booba suñu borom wuññi seen njàqare jooju ñu nekk ndax ab jullit loolu rek la mënal mbokkam suñu borom ba wax ci alquran ne wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan da ngeen dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla bañ a dimbalante ci bàkkaar ak noono kon nag suñuy mbokk jullit dañoo nekk ci ci ci tiis ci jafe-jafe su suñu yonent bi daa wax ci xadis ne dimbaleel sa mbokk zaliman aw mazluma buñ ko tooñee ak bu tooñee yëpp na nga ko dimbale te ñoom suñuy mbokk jullit lañ ba noppi ñu tooñ leen mu waxaatit ne masalul muminina moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim ka masalil jasadi ida staka minhu aduwun tadaa lahu saira al jasadi bi sahari wal umma mu ne jullit ñi ni ñu war a mel ci bëggante ak yërëmante ak soppante dañoo war a mel ne yaram rek ak cër yi ca nekk benn cër bu ca rek yeneen cër yëpp koy yëgandoo waxaatit ne al muminu lil mumini kalbun yaani yashuddu baadahu baada jullit ak mbokkam dañoo war a mel ne ay mool ni ñuy jàppante dañoo war a jàppante loolu yi nag moo waral ñuy roy waxam jooju ak wax gi wax ne addu'a silaaxul mu'min ne ñaankat mooy ngànnaayul jullit te xeetam bi daa bokk ci li wuññi seen njàqare buñ jaaxle mooy dellu ci seen borom ñaan gannaaw nag jaaxle nañ jàq nañ ngir ne ay eh, nit ñu jàng ñoo xam ne dañoo seenu doxin dafa wuuteeg doxinu lislaam dañoo dugg ci biir waa lislaam di leen jalgati ah lenn rek la ñu ñun mooy def ay ñaan ndax yonent bi ma wax loolu ci xadis ne man raa minkum munkaran fal yuxayirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika adaful iman képp ku gis ci yéen lu lu baaxut lu jaaduwut nanga ko dindi ca ci ci loxoom bu ko mën mu dindi ko ci làmmiñam te mooy coow bu ko mënut mu naqarlu ko ci xolam ñun nag nañ koy naqarloo ci suñu xol mooy ni mu ñu ko digalee mooy bu ngeen jàqee na ngeen ñaan seen borom kon nag jàq nañ te ñaan suñu borom mu wuññi njàqare ñooñu ci bi borom Touba mii ñu nekk ci wetam ak barke bi bu tedd bii ñu ngi ñaan daal suñu borom wuññi seen njàqare jooju ñooñu itam nga xam ne ñoo leen def yu métti yooyu yàlla na suñu borom wëlbati seen i xol bu fekkee nag yàlla nam nam mu ko wëlbati nag yàlla na yàlla wàcce ci ñoom ñaan nga Seydina Nuux waxoon damay rabbi laa tadar ala al ardi min al kafirina dayyaaran innaka in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafaran gannaaw loolu bu fekkee lool rek leen fi nar a bàyyi daal yàlla na leen suñu borom alak ñoom ñëpp ñu jigee fi te bàyyi xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu am jàmm dund ci ni leen suñu borom digalee ñu jàmm ko di ko kennal te topp seeni kilifa yi yal yàlla dogal loolu ci barke borom Touba kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom mu wuññi njàqare ci xeetu xeetu xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mépp ak fu mu mën a nekk te yu mel ni yàlla bu mu amati ci ci ci xeetam bi bi barakatil xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu